bismillahi irrahmani irrahim asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu noo ngi sant yàlla sunu borom subhaanahu wa taala di julli di sëlmal ci ndawam li mu yónni ci nun di sayduna muhammad ibni abdillah di ñaan yàlla ay xéewalam yàlla bu mu deñ di dotteeku ci moom ak mboole mi saxaabaam ak ku topp seen mboor ba keroog yàlla di wal buftu ba di yëkkati kàddu nuyoo yu sell yu tedd di ko jëmee ci jëmm yu sell yu tedd yi fi teew di ci jiital kilifa yu tedd yi nekk nun ci jataay bi tabaarakallaahu bu ñu ci tuddee ki ñuy sargal mu yóbbaale mbooleem sëtu maam cheikhul xadim muy cheikh abou baraka waaye bu ñu ko tuddee mu yobbale mbooleem ñooñ daara ci biir ñooñu ñu tuddaat ci kenn ki initié lii ta nekk sababu lii ci góorgóorloom ak ci farloom ak ci yitteem ak ci taxawaayam muy al imam Xaadim Njaay di ko sant di ko gërëm ci turuwa waa daara yëpp bi ma nekkee di seetaan naafila gi ci masalikul jinaan am mbégte lool ak xol bu sedd ci yëg-yëg bi nga xam ne defe naa kuy borom pas-pas bu sell rawatina ngay doomu daara yëg nga ko waaye mbégte li dafa gën a yokk bi ñu déggee ne imaam Abu Baraka mi ngi génne ci daara imam Xaadim Njaay jàngee fi ba bindee fi ñaari kaamilu alquran soog di génn mottali ji aliwaam ci biti del siwaat loolu meneen mbégte lañ ci am ngir yàllaak lu bokk ci yow bu ñu la tuddee tudd ko buñ ko tuddee tudd la su amee sag am ndam sa sag la sa ndam la bu ñu toogoon dégg ne safaan ba am na ci nit nit ñëpp di ko coow ci àdduna bi ñu ne moo ne di daara imam Xaadim Njaay la génnee danañ ci am kersa danañ ci am xol bu diis bu fekkee ne safaan nag am na nga ci am kersa xol bu diis bu lu safaanoog loola amee wax dëgg fa yàlla xol bu sedd nga ci mën a am ak mbégte lu kawe kawe kon Cheikh Abul Baraka yal yàlla guddal sa fan yal yàlla wéral la ñu ngi lay jottali cofeelu mboolem doomu daara yi ñi la gis ak ñi la gisul ngir yàlla ak lu jógee ci xol rek ci xol la jëm te li nga xam ne mooy génnee ci sa xol moo dugg ci xolu ñi bëgg alquran ñëpp xanaa nitu asxaabu shimal ñoo ci dul bég waaye asxaabul yamin moom ñëpp a ciy bég tabarakallah asxaabu simaal mooy bu seytaan ñoom moom wax dëgg fa yàlla bu nu sañoon du ñu toog di déglu yu ni mel waaye ñi nga xam ne amuñu lu dul yàlla amuñu lu dul téeréem bi ñu ngi lay bégee di la ñaanal yal la yàlla lafal cat te yàlla boo ci gis sa bopp yàlla boo ci gis sa bopp yàlla boo ci gis sa bopp ndax seytaane dafa sew dafa bari fu muy jaar munuñu lu dul ñaanal la mu muccal la te musal la ci seytaane ak i pexeem yàlla ci yàlla musal dafa am benn nitu yàlla bu ne ma fanaanee naafi la yeewu di dox di yëg ne biig dama fanaanee naafi la mu ne fanaanee biddanti ma biddanti yeewu di dox am kersa yëg ne dama biddanti moo ma gënal yëg-yëg bale may am ci ma fanaanee naafi la mu ne biddanti am kersay biddanti moo ma gënal am yëg-yëgu biig dama fanaanee naafi la mu ne ndax seytaane dafa sew ndax li muy njëkk a xintewoo pour def ko mooy bul jàng alxuraan nga rëcc ko jàng ko mu ne la waaw bul ko mokkal nga rëcc ko mokkal ko mu ne la waaw bul ko jëfe nga rëcc ko di ko jëfee mu ne la waaw bul ko sellal nga rëcc ko di ko sellal mu ne la wanewul wanewul nga xam ne du la bàyyi fen tey bi ñuy amee yëg-yëgu ne Cheikh Abou Baraka mi ngi jàng téere yàlla bi ñëpp bég ci du bàyyi Cheikh Abou Baraka dana fexe fexe ba ne ko bégal sa bopp ah bégal sa bopp loolu nag moo tax ñu lay ñaanal yàlla mu musal la ci seytaane yàlla la ci yàlla musal waaye kàddu Cheikh Alaaji Njaay Cheikh Ndindi di leen seedal ne imam xaadim doomu daara yëpp ñu ngi koy sant ñu ngi koy gërëm ngir yàlla ak pas-pasam ak taxawaayam ndax daara dafa tumuranke fii mu toll nii boroom pas-pas yu sell ñu doylu ñu dëggu ñu am taxawaay rek ko mën a taxaw ndax tentation yi bari na yiy këfaate bari na yiy téqatalaate bari na tey bu ñu mënee yëkkati kuréel bu tudd aar daara nekk ci di yëngatu ku ci mën a ñëw affiché wu ci reculer woo delluwoo ginnaaw borom pas-pas bu dëgër nga ndax aar daarakat taxawuñu lu dul dañoo dëkk cim réew am fii sañ-sañ ñu xañ ñu ko ñu bëgg a doxal sunu maslaxa li mu laaj ngir jàng téere yàlla bi ñu néew doole ñu ne ñu néew ngeen doole du ngeen doxal seen maslaxa du ngeen fi jàngee téere yàlla bi ci nii ngeen ko bëgg a maslaxe da ngeen di man am seeni ndongo toog seeni waajur di fay ñu ba leen ci jàmm en attendant ngeen nekkagum ci jàmm ba keroog ñuy agsi ci yéen amu leen ko manu leen ko manu leen a fay seeni ndongo du ñu génn population bi di leen jàppale ñu am lu ñu lekk am lu ñu naan am lu ñu sol ngir jàng téere yàlla bi foofu la gouvernement du Sénégal toll ak daara yalwaan yi saraxuñ leen te duñ leen bàyyi ngeen yalwaan dimbale wuñ leen te duñ leen bàyyi population bi dimbale leen toog leen ci kër yi wala ñu delloo leen ci seen i wayjur 2020 Covid bi dikk ñu def ci lu nekk tas ci daara yu bari fitnaal ci daara yu bari kenn ci ñoom mooy ki ma àndal na le mooy Oustaz Saliou Thiongaan keroog ba ñuy dal ci daaraam di ko agressé moo ki ndongaam di leen duma keroog Imam Khadim Ndiaye ca ña fa njëkk la bokk soutenir ko taxawu ko defendre ko waxal ko loolu dakkul agression boobu ci daara yi daara yu bari ñu tas ko bay ndamoo tas nañu daara yu bari ba delloo lu toll ci juróomi téeméeri ndox wala juróomi junniy ndongo 5000 enfants buñ ko waxee rek mooy ay taalibe delloo nañ leen. ñuy toog di tekkaaral di wax bala xew fa fële ca àllub Casamance ba xew fa ma yëkkati téléphone woo ko moom imam xaalim mii woo sëñ aadama Seck ne leen taxawaay jot na ndax bu ñu continuer di bàyyi ñii jóge nañ ci daara yalwaane ñu ngi son songi daaray bay dundee ndax ku dem ba ca àll ba jote woo kenn dara foore ba nga gor daara yeñ tas keroog ba ñuy dem fa ñu dëkk fekkuñ fa néeg du néegu ñax du dara seeni ëmb seeni valis ak seeni ndongo lañu dem fanaan ak ñoom ca àll ba ca gajj ya xëy suba teel soog di gajji ngir sampi bant ngir taxawal néegu ñax xanaa ñi ay jàmbur lañu jotewuñoo kenn dara bëgg yàlla ak taxawu téereem bi moo tax ñu dem defi loolu ñooña ñu fekk leen fa bàyyiwuñ leen jël leen ne dañ leen di yóbbu delloo leen seen i mbokk ndax dañuy xeex nee na ñooy benn feebar bi ma ko wooyee waaju ko immédiatement lañ tenir réunion bu gën a jege ci jumaa sëriñ Modou Guèye bu parcel nga xam ne mooy responsable u aar daara mu woo ñi mu war a woo ñëpp coordonné ñi mu war a coordonné ñëpp ñu toog ci la kuréel bii di aar daara juddoo ba mu juddoo ñu def sunu première conférence mi ngi nii kilifa gu nekk woo na ko loolu faaw ko mbooloo mi ngir ngeen xam ki mu doon ak taxawaayam ndax bari na koo xam ne ma ngay wax ci kaw bu ñu ko wooyee ci suuf mu négocier bàyyi lépp te daara ji looloo ko yàgg sonnal ba fii mu toll nii. ay nit ñëw nañ ba fii ci këram ci daara ji woo nañ ko téléphone lu ne def nañ ko ngir rek nañu toog ñu waxtaan ngeen bàyyi li ngeen di def su ngeen ko bàyyee ñun ñu mën a wéyal li ñuy def mu ne leen man téere yàlla bi lay faral ñooñ daara lay faral loolu mu waxoon dañu ci ba fii mu toll nii kon loolu ñu seedal leen ko. kon bu ñu toogee ne résultat bu mel ni am na ci daaraam laa xarwa ndax wal baladu tayyibu yaxruju nabaatuhu bi idni rabbi walladi xabusa laa yaxruju illa na nakida pas-pasam dëggoom dogoom moo ko may lii te mën na koo may lu ëpp lii sëriñ xaadim jërëjëf waa Rabita mën nañoo wax ci seen tur waa fédération mën nañu wax ci seen tur waa madaarisul quraaniyatul asila mën nañu wax ci seen tur waxdatul katadib mën nañu wax ci seen tur